Euh, Assalamu alaykum. Wa population Kër Moussa euh, man la mohamedou Mansour euh, nek chargé des opérations électorales bu yewi Askan Wi bu commune keur qui ci une coalition ci euh, pour andi Léral par rapport li nga xamné ne na ci élection yi locale yi nga xamné wessuna té élection locale après Bindef def bin ko commission de recensement des votes euh, génnee ay résultats résultat résultats yooyu mu euh, mu après tekki la coalition Yewwi Askan Wi euh, évidemment résultats eu, la coalition yévi Askan Wi dañ koy contester dañ koy contester ndax élection yi dafa am élection yi règles ñi nga xamné suñuy ndaw yi nga bureau de vote yi yi nga xamone ñoo doon yenn lieu de vote yi def constat bobu ñew remonter information bi ki nak la la coalition yewé Askan Wi def benn recours recours bi recours, nañ ko fait ñu recours moy clamé clamé bi dugol nañ ko euh, cour d'appel té dañ koy dugol tamit délai yi nga nañ muy juróomi fan respecté nañ ko dugal nañu recours bi ci juróomi fan yooyu li ci des nag ñun ñu ngi toog di xaar recours boobu maanaam clamé boobu ñu kalaame fan lay mujjee di taxaw di leeral ne clamé euh, boobu ñi nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar waa cour d'appel yónnee nañ leen ko yónnee nañ ko tamit yeneen coalition yi nga xam ne fii ci commune Kër Moussa bokkoon nañ ci jongan ci jongante bi ñoom ñëpp jot nañ ko kon nag loolu day firndeel ne procès bi nga xam ne am ci dans un délai deux mois un deux mois inshallah allahu rabi dina am te su boba ñun danañu taxaw présenter suñuy argument présenter suñuy preuve wane ne ndam li nga xam mo génné ci élection locale yi ñun ñoko mom que ne suñu ndam la ndaxte bu fekkee élection dafa am dafa am ay charte yo xam dañ ko tëral pour ñu tëg pour ñu tëggee pour ñu defaree ko élection yi te charte yooyu bu fekkee dafa am rëkk-rëkk dañ naan yoon moo fi nekk te yoon mooy atte te yoon boobu ñun lañ jox confiance moo tax ñu dugal suñu recours foofu te yaakaar nañ ne incha allahu rabbi eh, danañ ci am ndam waaye tamit di profito di tontuwaale waa benn Bokk Yaakaar ñi nga xam ne wala ñenn ñi nga xam ne ñoom ñoo naan ñun dañoo ñàkk ba pare ñànki may wax ne ki ñàkk ñànki moy ki nga xamné dañ ko dafa ñak mais ñun dañoo jàpp ne ñàkkuñu té ñun am nañ population bi gis nañ né presque 70 population bi andu ñok wa Benno Bokk Yaakaar kon lool day firndel ne ñun ki liñu nek and ci population keur Moussa am sympathie population keur Moussa ñun dinañ fexe ba dinañ respecter ñom ñom ñi nga xamné ñom la population liñu bëgg ñun ñu respecter ko di wax ne bu fekkante élection dafa am jalgati ki ñu japp né dafa ñak ñàkkul ndaxte dafa am jalgati kon donc bu ñu bu ñu fi nekk naan ay dañoo ñàkk di ñànki déedéet parce que loolu amul ñun dafa am yoon yoo xam ne dafa tëg dañ dañ ko fee teg pour ki nga xam ne jàpp na ne élection yi dafa am labaj mu dem yoon ñun yoon boobu la ñuy topp di wax ne di leen waxaat ne mënuñu ñoo jaxase ak population bi ndaxte ñun dañoo bëgg population Kër Moussa ñun danoo bëgg population Kër Moussa dañoo bëgg Kër Moussa am avenir bu baax kon buñu ñu mënuñu ñëw pousser à ce que ñu def lo xamné ne day yàqal ëllëg Kër Moussa ñun ci logique bobu la nekk fi nga xamné nak mom lay mujjé mujjee wala mom lay mujjé mom moy li nga xamné xewna xew na muy ñu bëgg installer conseil municipal bi tay yi ni sous préfet mo woote pour ñu installer conseil municipal bi di wax né loolu position coalition yé Askan bi moy duñ fa teew duñu teew ci installation bobu nonu ndaxte dañ japp né élection yi jaarul yoon. dañ ko labaj kon dañuy xaar ba ñu lijjanti loolu ba mu leer ñu soog a xam position bi nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy taxawee kon donc foofu dafa doon jar ma leeral position euh, coalition Yewwi Askan Wi di mujjee fenn mooy di lancer appel wala di wax waa autorité départementale yi di ci tudd Birame Souleye Diop ak euh, Baba docteur Babacar Diop ak euh, Mamadou Jiite bi nga xam ne moom mooy yore maire Thiès Thiès Thiès Ouest di leen wax ni ak Ousmane Diagne bi nga xam ne moo yore mairu maire Thiès Est di leen wax ne dinañu organiser fekk ay fan yu néew conférence de presse ñu leen di woo pour ñoom ñëpp ñu ñëw ci coalition boobu di woowaat encore autorité nationale yi ku ci mel ne président Ousmane Sonko ku ci mel ne président Khalifa Sall ku ci mel ne euh, président Malick Gakou ku ci mel ne président Déthié Fall ñu ngi leen di woo aussi ci conférence de presse boobu te incha allah entamé nañu entamé nañu démarches yi nga xam ne pour ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp ci eh, combat bi nga xam ne mooy suñu victoire te ñu jàpp ne dafa am ay njuñ njaaj di leen jaajëfal bu baax di leen remercier bu baax.